sant Saw Sidibé daf nañ ko ministre conseil ci wet gi ci wetu Macky Sall ci wet gi mi tata mi tata toutes mes mi papa mi mi tata barki démb nga fi jaar ñaxtu ah nga xëy ñaari fan ñu dóor la ko kon léegi nag fii la aajay di fajoo maire am sant Saw Sidibé kaay wax ñu nag la woowee lan nga sentir ak lan nga yëg ci wet gi xaar ba wengal ko yëpp lay sumi teg na waale salaamaaleykum vraiment kontaan naa kontaan naa yàlla moom bu ñëwee rek ñëw na ku muuñ muuñ <laughs> man daal <laughs> salaam bi ma jaaxee émission Kouthia Show bi ba wax vraiment yi nga xam ne métti na ma ci kanamu yàlla tuuse na ma woon tuuse sama staff politique ci kanamu yàlla yàlla mooy defar ci làmminu Kouthia moom daal mu tooñ rek xam naa ma ki fàttali ma rek woo ma nii demee man dama jékki-jékki rek téléphone bi sañe ma décroché ayo waaw monsieur Abdou Aziz Mbaye directeur cabinet du président wéy Mbaye Mbaye wéy déet Mbaye man vraiment euh, xaw ma lan nga may doyee mais damay bëgg a xamal ne je suis vraiment vraiment am naa yu ma métti ci kanamu yàlla parce que bu demee ba may jël sama métti xoy dem di ko wax ci émission yi pour nit ñi xam nañu vraiment j'ai pas refusé aucun poste parce que bu ñu la gisee si gouvernement bi dañuy yaakaar ne dañ la jox poste nga bañ ma ki woo ma ma dara vraiment loolu rafetlu ma ko tey rafetlu ma ko ëllëg parce que c'est pas normal waa loolu rek laa bëgg xaw ma lan nga may doyee mais avant may mën a wax ak yow li la mën mooy que vraiment mer naa nga nouvelle bonne nouvelle <laughs> nga ne laay <laughs> def na ma ministre <laughs> yow ta ngay maq rek mbay waaw naki waaw maa ngi garde ligne bi léy léy lii de yàlla ko mën lii de yàlla ko mën ay waay allo ah xam naa daf may paas maki ñaw gis nga ku dul tàngal te ñuy ñu kii la dafa waaw Macky Sall ngaari <laughs> na nga def waaw loolu la ma monsieur Mbaye wax directeur cabinet moomu ana sa nouvelle bi yaatal nga fa nga war a yaatalee <laughs> yaatal nga fa nga war a yaatalee waa ñii tout le monde content tout le monde content vraiment tu as respecté tes engagements li nga waxoon ci vingt cinq ministres yi sax bu fekkee dafa tarxiis ñii ak liggéey nga wax waaye ministre conseil moom du doy sàllaaw <laughs> <laughs> gërëm naa la sàll ngaaxi jërëjëf kon suba ma xëy si ah, ah ma xaar jeudi ah suba la jeudi kat waaw suba <laughs> ma xëy si li man teg gaa toog ci wet gi <laughs> jërëjëf ma ki jërëjëf ànd bennoo yaakaar yàlla bu mu tas yàlla bu suñu yaakaar tas laay <laughs> laay la laa daal la demee moo taxit gërëm naa ku caasoo gërëm ñi ciy liggéeyee gërëm maquillage ak ñay defar ba mu baax ndax fii nag émission la boo xam ne kat nañ waxante dëgg day tax ñu fàttali ko la moo taxit comme que je suis un grand professeur de droit à l'université xam naa ne sama élèves yi dinañ ma gëj a gis étudiants yi moo taxit ku bëgg rek bëgg te ku bëgg nag wax dëgg yaaye vraiment da ngay def yëfu bëgg waaw te kon nag <laughs> eh, eh, eh, te cek cek cek cek cek <laughs> wilaay <laughs> sax sàllaaw la kan laa ilaaha nu caxagoon wuy yaay wuy yaay yoo yaay ma Yeah, yeah.